Euh, sant yàlla bu baax euh, li ñuy ñaan sénégalais yi rek mooy ñu ngi jëm ci bis bu am solo le Sénégal s'est levé comme un seul homme pour euh, dem ci élection à date échue nous demandons au chef de l'État le président Macky Sall de respecter ses engagements comme bi muy passé bi prêter serment devant le peuple sénégalais et devant Dieu il avait dit qu'il allait respecter scrupuleusement la constitution sénégalaise. Nous lui demandons solennellement, nous demandons au chef de l'État de renoncer à toute forme, à de vouloir rester à la tête de ce pays parce que la constitution ne lui en donne pas le droit. Nous lui demandons solennellement de renoncer à toute forme de subterfuge pour, pour, pour rester à la tête de notre pays. le frontispice de notre République est aujourd'hui balafré. Le peuple sénégalais a dit non. Ce peuple aujourd'hui qui demande qu'une seule chose, que l'élection se passe à date échue, que les Sénégalais aillent vers une alternance et qu'il y ait un nouveau souffle d'espoir. Ce souffle d'espoir, nous le cherchons. Nous allons nous battre pour l'avoir. Nous l'aurons parce que simplement, d'autres peuples qui s'étaient engagés, des peuples sénégalais, vaillants peuples, en 2000, comme en 2012, ils, a, ils s'étaient battus pour avoir cette alternance et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le respect du calendrier électoral, mais également qu'il puisse rendre le, le pouvoir le 2 avril au nouveau président élu. man la Tamsir Bakhoum syndicaliste wante maa ngi fi ci ñëw ci turu coordonnateur forum pour la paix le développement ci aar suñu élection li ñuy wax président Macky rek mooy dans les meilleurs délais mooy mënuñoo génn fourchette 30 jours minimal bi des ci datu expiration mandaam kon le 3 mars au plus tard dimanche boobu président de la République war na mën a organiser les élections de la République présidentielle li ñu koy wax mooy il a fait deux mandats il ne peut plus un autre mandat Ce qui fait, on n'a jamais eu un président de la République qui n'a pas été élu. Le président Macky Sall, nous vous lançons un appel. Que pour nous le Sénégal, tu goûtes. L'Inlaïwa pour déglou les fossoyeurs, organiser les élections dans les meilleurs délais. Et que le peuple sénégalais souverain puisse choisir te est am ci et le C'est la raison la laquelle nous lançons un appel en tant qu'acteur pour la paix et le développement au Conseil constitutionnel pour le demander désormais d'ici à deux jours, si le président de la République ne fixe pas une nouvelle date, qui ne peut pas dépasser le 3 mars, nous demandons au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités et de nous fixer la date du 3 mars comme étant la date des élections présidentielles. Nous devons aussi nous prononcer sur le cas Vardini, parce que les Sénégalais, ni de politique, ni de xelu askan wi loi bi prévoir na loolu nee na bu fekkee dafa am candidat ba nga xamante ne retenir nañ ko mu retiré wu mënta entraver en rien la continuité du processus électoral kon le cas Wardini n'est pas un cas d'école il faut ñu xam ne tey Sénégal jàmm moo fi war a des jàmm moo fi war a nekk et loolu Sénégal ki mu ko jox tey muy président de la République il doit partir le 2 faire la passation du service et que le nouveau président élu soit véritablement resté pour continuer le développement et la paix du pays je vous remercie. ñu respecter calendrier républicain lu suñu charte réew li mu digal li mu wax conseil constitutionnel décision bi mu def naka pouvoir public yi respecté nu mu gën a gaawee pour que ñu mën a tenir élection yi dans les délais selon le calendrier républicain 2 avril ndax na charte réew bi loolu la digale loolu la conseil constitutionnel lool loolu la dëgëral loolu la firndeel euh, donc respect légal nañu appliquer loi bi rek waaw loolu lu am solo la parce que marche dafa nekk loo xam ni suñu charte réew daf ko maye bépp koo xam ni citoyen nga ngay jigéen ngay góor boo amee lu la naqari war nga mën a génn si mbedd bi nga fësal ko jiitu ak ku jiitu y a pas de société a pas d'acteur politique Il n'y a pas de candidat. Nous sommes là unis sous le drapeau national pour préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est que notre démocratie a été menacée. Notre état de droit a été bafoué. Les valeurs ont été perverties pendant 12 ans. Il est temps maintenant de se rassembler, de faire face à Macky d'organiser les résistances pour lui dire son mandat est terminé. Il n'a aucune possibilité d'aller au-delà du 2 avril. Le 2 avril, Macky Sall va rendre le pouvoir et il faut le temps d'organiser une avant le 2 avril incha allah pour élire le prochain président du Sénégal. waaw am na lu ëpp junni am na lu ëpp junni détenus politiques il y a plus de mille détenus politiques dans les prisons du rek Dakar région yi am na ay détenus politiques moom président Macky Sall bu libéré cent wala lu ko topp dañu ko naan alhamdulilah lu baax la waaye na yokk jéego yi parce que prisonniers politiques yi ña ca ëpp quatre-vingt-dix pour cent yi mbaa lu ko ëpp. defuñu dara lu tax ñu jàpp leen ci kaso yi dañu leen a tooñ fekk leen seen kër jàpp leen tuumaal leen wax ay terroriste lañu ay force obscure ay rebelle lañu xëyee xëy benn bis ubbi prison yi génnee leen comme si de rien n'était alors que téye nañ leen fa ay weer yàq seen liggéey yàq seen adduna donc loolu kenn du ko ci wax jaajëf dafa réparer injustice na ko yokk nag na bàyyi ñëpp fii ak fan na bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram parce que moo jaadu téyewu ko fa dara fii ak fan na bàyyi Diomaye Diomaye waroon na nekk fii tey candidat la à l' élection présidentielle Bassirou Diomaye bu wootee concertation lenn rek la ñuy concerté mooy mu nangu ni le 2 avril jeexal na mu woo ñu toog ni nañu waxtaanee fii ak le 2 avril kañ la ñuy organiser premier tour ak bu dee amee deuxième tour kañ lañ koy organiser ndax ñëpp nangu nañu euh, campagne électorale bi ñu tënk ko ci ñaata fan. loolu mën nañ koo waxtaanee mooy naka la ñuy demee ci élection pour am le président de la république avant le 2 avril. leneen lu mu bëgg a def lu jéggi la 2 avril loolu compromission la du ñu ko nangu man du ma ci dem du ma ci wax parce que mënuñu ko may benn minute après le 2 avril